suratul fajr saaru fajar makkiyatun kañ makka la aw madaniyatun salaatu ñett fukk ak ñaar ci kaafir bismillahi fafina wa khawla jatu tu dum rahmani kala ya khawar min lahu yub jaar ya rahim kala ya khawar min lahu jaar akara wal fajri gëna fajar yan fajar fajar bëpp bés mbaawal fajar gëna fajar ci bëss arafa mooy fajar guddi ñaaral ga ci arafa nekk diggante bëss arafa ak bëss fene ñu ne wal fajri gëj na ma fajar fajar jëkk ja mooy xateeku bu rawee jóge ca péer yàlla ba nga xam ne mooy cosaanal xamal mbindeef yi lu mën a xam ci maanaam fajar daal yàlla ak cay gën wala yaa dina di guddi xasin yi di fukk yàlla ngi gëj itam ci fukki guddi yi jëkk ci bésab tabaski yéen dina amul ay bés ñu yàlla gën a bëgg ci ñoom jëf lu mel ni fukki fan yi jëkk ci bésam tabaski rek bés bu ci nekk boo ko waree koo raxat nga tolo màggat bés yooyu te mooy bés mu yooyu itam te muy xam yonent yàlla Muusaa ma ñett fukk la jëkkoon a war muy weeru yol xaada weeru diggi tabaski matalee ko fukk mooy fukk yooyu wa safee ga ñenam safaa mooy lépp lu tóor mooy lépp lu tulent wala ko gëna tóor mooy lépp lu tóor safin wa safin gëna ma aadama ak hawa wal watri gëna ma yàlla nga xam ne moo wiitar rek ñu ne safa mooy aadama ay hawa wala mooy guddeeg bëccëg wala gépp tulent dana la wér yàlla lépp lu mu bind xam na tulent naka ngeen di doon lenn la ci yenn aay bind asamaan bind suuf bind guddi bind bëccëg lépp lu mu def sàkkal na ko tullent bind góor bind jigéen mu def nag moom yàlla nga xam ne moom rekk a tuur nga xam ne ci bind tullent yëpp moom mooy ku tuur ko mooy yàlla bon nag gën ni ci lépp lu mu bind bind gën gën ci gënam itam wala yi gën ñu ne ma guddi yaa ree ba kanam war a ñaan gën naa ca guddi ba jant ba fayee ba guddi moom itam tab am rañaanam bëgg a jëm fajar xar si daal itam laa aju naka la ji loolu leen gën kafa ñun gën ñu fii ñu ñëw borom kër bu tell ma jaa yooyu yàlla gëñee ndax ñoom maanaam gëñee ngi ci maanaam mooy yëf yi nga xam ne yàlla leen bind soo soo ko seetloo xam ne bind na ko ci xam-xam bu mat ak kattan lu mat kon nag moom rek moo xëyee jaamu lu mu doon gën lépp jawaab ja daf ko xasas ngir ak bonam wallaahi def na buggal leen yéen yéefaru Makka yéen ñëpp da ngeen mas mbugal loolu ngeen doon gëñal moo tax moo gën a baax moo xasas sa jawaab ji de ndax ma kabidi alam tara ndax xam nga yow Muhammad kay fa sa alam naka def rabbuka borom sa jihadin yarama jihad yaram jihadin jihad yarama yarama ab bu dëkk ga mooy yaram barke ne maa di kon borom taxawaay yu guddi la ñu daanaka guddee ba mat ñeneen téeméeri xasar ñooy aar yu jëkk ñu gën a mbaru ci li yàlla bind ci ñoom la siddaat nekkoon seen nguur ba siddaat yi nga xam ne dafa amoon kattan ak mateel gannaaw bu morom ci àdduna buy gaw nag gawateeg yàlla ne dégg naa aljanna moom dana defal aljanna ci àdduna mu dal ni mu ko seeta ci àdduna bi fu gën a teey suuf gën a teey jaww gën a neexi ndox ñu seetal ko mooy nañ ko fa tabaxal dëkk boo xam ne dembale murul dembale xaalis rek dañ koy tabaxee ba baaxee ma nañ fa dawal ay yoon lépp lu rafet ci àdduna nañ ko fa dajale lépp lu ñuy soxla ci lekk ak naan nañ ko fa dajale ak jaman jeere wax moom dana ko toxal ci suuf soo ko am doole bay xalaat loolu xam na ay at du tabax njëndéem loolu ba mu sotti yàlla yi yéexe ko dund na ñeenti téeméeri at du tabaxal jaamam yooyu ba mu mat ba am na daal dara dara dara dara dëtu lu may sant ko rek mu wax na ñu may sant aljanna de ba aw saan ndax diggante yow dëkk ba dem na bay seen dëkk ba rek malakul mawti daal di dox ci kanamam mu ne waaye jógat randal leen fii di dox ci sama kanam xanaa xam ne ne buur bi la mu ne ko man maay malakul mawti dañ maa yónni saxoo bi daa jëm sëri mu ne maa ma àgg rek ci dëkk bi mu ne ko kañ ma loolu fii nga yem rocc rooga rek mu ne dandal foofu man la yàlla defoon aar irama jamono gi nga xam aaweta daan na sàmm di wër na baax ca dëkk booba xool ko jàmbale ngi wut di indi wal ko fi nga xam aaweta waaye gannaaw ko wut nañ ko wut gis ko yàlla seen maxal bët yi wala gis dëkk booba gannaaw bu ñu xalaatee seen waram ndax anaa ngi na fàtte ne ni yàlla def mbër moomu nekk aat ñi nga xam ne lam yoxu lox bindeefut nit waaye kam fen fil bilaadi ci réew yi yàlla bindut dara masulañu dëkk yàlla yàlla bindu dara lu ñu doog yooyu ci mboolem àddina kattan ak tii jotoon nañ ko jot waaye boo xam ne mbindeef musu ko jot rek te sama ba kam ko dana alladina ñaana jaaboo dox nañu saxara jaaboo xet nañu saxara balde ak sam wada ñooy xaari ñaareel ñooñu ñu mbëru lañu woon ñoo daa xet dañu di dëkk ci biir rek biir waa di ca xuloo wa saraw naa saraw na gilaw taari kari borom daa jaar gannaaw xaaral samuura firaw na itam ñëwoon na te firaw na daaw la woon de mooy ki nga xam ne képp ku mu mës a bëgg a bugg rek daf lay daaj ay daaj yooyu ñu ñëw ci sa tànkam lay joor sa tànkam càmmooñ sa loxo lay joor sa loxo càmmooñ jël ba nekk lañ fekk ci sa dund nga jubóo jant bi doo lekk doo naan ba ngay dee alors ñooñu ñoo ñoo ne taxaw jawar nañu ci bilaar yi ci réew yi ñooñu ñoo doon ci àddina si te ak kon bëri na waaye ci réew yi ak safara yàq yàq nañu àddina ci laay ak lu dul ñoom parce que dafa sotti àll yi si ñoom rab bu ko borom sa seytaane daa doon xeetu mbugal bu ko ne yàlla sotti ci moom xeetu mbugal wala kaa la ko inna rabbaka naka borom sa dafa mir saa di aju ne tey kii tuubluwaay rek na nga xam ne yàlla moomu ñu ngi ci tuubluwaay rek ñu ngi joxe jaam bu nekk di tuublu jëfam rek su jaam bi xamee ne yàlla am koy fuglu ci lépp lu muy def ak lépp lu muy wax dana ci bënti jëfam de te dana ñu yow xam ne te ko xam ne say wax ci say jëf la bokk da nga war a pexe say wax rek xeet yi jëkk yaa ngi am na yàlla xarage ci kattanam loolu wane na yàlla gi ba am na insaanam la aayal xéefar ila mabtaleewoon dem matt na ko rabboo boromam fa akramoo tam teral ko jaxal ak lu moom war na am woo tam xéewal ko waaye xul doon wax rabbi borom sama atrawali teral na ma doomu aadama li jikkoom su bëri alal rek ak yëf xéewal dina gañe mu daal ne man yàlla ma may yàlla ma teral waa maa ngi gàmm sa réew ndaal dem na tunam ko fa xadara tam ci sal alay ko ngi soo war sa gam waaye xul doon mu wax rabbi borom sama aa nañu dawa dal na ma soo xamee ne yàlla na tuna ko itam ba néewal war sa gam mu ne man yàlla dafa maa dawalal xaalewuma tam laa di nga teraanga di am koom di nga dox di ñàkk rek déedéet teraanga mooy topp yàlla dox di mooy mooy yàlla rek ci faru makka ñoom xamuñ loolu rek dégguñ baax bi wërsëg wi nattu la ko tuddee ñàkk ji nattu la ko tuddee ñoom ñaar ñoo yem tepp ku ci ne nattu rek la wala bookum bi sharri wal xayri fitna tam yàlla dana leen nattu ci jox leen alal dana leen nattu ci xañ leen alal yaari nattu lañ yoo xam ne ñoo am tef su la joxee alal du dara lu may nattu te ndax li ci war da nga ko ci def am doo ko ci def da nga ciy topp yàlla am da nga ciy moy yàlla da nga yëram mit mi dimbali ko am da nga koy xeeb di sink bi ci koom ku ñàkk itam yàlla daf koo nattu ci ñàkkam gi ndax dana muñ ba demaate yàlla am du muñ ndax dana añaane ci yàlla jox lu mu ko joxut am du ko añaane ñoom ñëpp nag ku ci ne su defee da nga xam ne moom la yàlla bëgg ci moom ñu si ko xam ci topp na yàlla te sant yàlla ci mayam dimbale ñu néew doole ku ñàkk ci muñ na topp yàlla te muñ bu baax te añaanut ki nga xam ne yàlla jox na ko lu mu ko joxut bon ñooñu ñoo am dara nga fa yàlla rek su fekkee nag ni borom xéwal bi def ko réyloo rek kon kooka nattoom nattu bi jéem a jotalaale rek koo xam ne la ci jëlee ak mbugalam la laata la. bu ñàkk ci noonu ñoom ñaar ñëpp nattu la leen yàlla tuddee nam ko waxee cee laaj bi ca lam bi yaayee wala boogum bi sharri wal xayri fitratan ñaa ko waxee dara du may yàlla dëgg-dëgg lu may gëm yàlla su fekkee ni jaam bi gëm na yàlla. yaar yi ci def nag moom su fekkee yàlla def ko def mu am alal ja baax na ba mu nekkee ci loxol waa yu ñëw su fekkee daf koo def mu ñàkk itam booyil ba tey ku ñàkk te muñ jaamu yàlla buñ tànn la foo di yëngu te nañ ku xoomal di sant yàlla ak ku ñàkk di muñ ku ci gën fa yàlla ku ne am na ku ci nekk am na xaaj bu la gënal suñ seetee nag saa la yonantu ñu ci gën a bari ñu ñàkk la ñu am kon dañuy jàpp ne ku ñàkk sa xoomal ah ku ñàkk sa muñ moo gën ko xoomal tey sant yàlla tey ñàkk yi ma fa ñoo toog bés ñu ne ni ndaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañuy tawat ñu amuñ dara borom xaal yi demee nañ yoon bi yëpp suñu waxee sabax ñu sabaxe seen alal suñu waxee ñu ne goreelu jaam ñu daal di jënd seen jaam goreelu suñu waxee dundale ñu dundale suñ mën nañoo aj makka mën a jihaad ñoom lu mën nañ ko demee ni yoon bi daal ñu ndesewuñ dara yonent ne ko sallallahu alayhi wa sallam soo demee ne ko ne leen ñoom ñu ñàkk ñi danañ dugg aljanna ba am juróom téeméeri at genn wala bés ci bési yàlla ña ñoo amoon ñu fa alsi de ay kële nga ca aljanna ñooñu aljanna dañ koy séentu nii ñooy suuf di séentoo bitim yi ku ñàkk rek dafay dëkk ku gëm yàlla ku ñàkk wala yonent bu ñàkk wala ku sëyit ku ñàkk su ngeen waxee ne subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar benn yoon su borom aala yi sala xewal benn wala yëpp it duñ leen jot ci bi yoon rek ñu leen di kontaan lool daal di dem ñu xoomal ñu dégg hadis yi ñoom ñëpp ñu wax subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar ñu leen di ci yéen ne ko bari ñu waxoon gaa ngeen koy wax ñoom itam ne xam teeg ñun ah loolu lañ leen yàlla la bu ko neex dafay jox rek daal loolu li ñuy àdduna defee mooy daraja mooy karaama mooy yëkkatiku daal yàlla moom defu ko muy dara xamalal ju bari ak daraja yàlla defu ko muy dara seetul seen melo yi seetul seen alal yi ñu ngi seet ak seen xol yi ak seen jëf yi de ku sa xol dangeen jëm ci yàlla seen jëf ci jëfi topp yàlla kooku daal la konte ko amul lu rek tax na rek daal bayit laa tukrimuuna keroog bi leen alyatiima jirim te ñoom ñi am alal ba di ko fukkalee duñ jot keroog jirim duñ ko jox xaqam rek xataa xaqam ci miraas sax duñ ko ko jox ku dee ñu jot sa alal boole seen alal ya xam jirim ya wala sax duna dëral ci leen seen bopp fàtte keneen ala taa miskin ci leen miskin bu ngeen leen miskin bu ngeen bay ku ku leen miskin ñu ngi fekk yàlla may yàlla xëy na tamit suñuy xaar ñoom di ko yàgg naa ko lu yàgg baaxal ji waxtaan bi da ngeen lekk pour affaire gànnaaw ak rafet lekk ndam man bu dee aji sax bu nit boole ngeen jëkkante ñu laaj ma ñu woo ko ku ne lekk wàllam ñu ñaan ñëw ci loolu xale amul dara yëpp ngeen fàtte naa leen lekk ko balaa ñëw màgg nga tamit boole da ngeen topp almaara ji ban ko feeral ñam man bu dee aji bëri te ñu ne da bëgg a yëndaw alal yéen bëgg a alal ëpp na. kàllaa ngir ñu dund ka moom de dund de laa dugg ak ñoom mokkal ak mokkal pour dakkal dakkal ak mokkal ak mokkal bis boo xamee ne yàlla war na tuuti ba mokk nekk tunde naaw mu juddu ñàkk tuuti ngoon taxaw bu fi jógee dara sa sa tuuti lu muy géej gi te géej gi dañ koy taxaw ñu safara ci ñu ñu jëm ko jëm yàlla wa jaa ate bi ko ramu ko mbiram borom fa wal wala ko sama bi ko malaaka safan safan ñu ngey sape sape de bis boo xamee ne yàlla mokkal na suuf si de yàlla boppam ñëw maraaka yi ñëw sape sape wër doomu aadama yi wajjira ko bi kii yow may seen bërëb karool bi jahannama ci jahannama karool yàlla ne indi leen la jahannama ñu daal di ko mos juróom-ñaar fukk dina ci yan yan ko juróom-ñaar fukk dina ci malaayika ngëpp ca ma ngay fiiw moom jahannama yàkkamti ñu ne ko lakkal ba mu lakk yal na suñu bësëb keroog dafa sax lay waaru leen sànnu yu rafet keroog ñu ne ko gën a dëjël ne waaye keroog ñoom ñëpp ñu waaru de waa nee na moo xam si kenn ñaan ko si karaawal waa ana boobu waa dana bu mu jëriñati jaanama ñëw na ñu képp ku gëmu doon yàlla topp doon yàlla jaanama lakk ko yóbbu ak ko yóbbu rek lakk looloo def ñu toog ba foofu nag nga fab di gëm foofa kay kenn du weddi weddi wolof ñu gis bokk ja voilà as nañ jaram ngir moom ñëpp dinañ dem waaye boobu gëm nañ moom dootu jëriñ muy gën gëm yàlla wuñ fam yem boole woon njëkk woon ñu yëpp ñu dañu ci benn fat doomu aadama yi afatay jinne yi ci suuf lañ jinne yi ci suuf afatay malaaka yi ci suuf lañ mooy seen afatay malaaka yi njëkk lañ malaaka yi afatay malaaka yi nga asamaan ñaareel lañ ba asamaan juróom yaa faj nga dem bay ci maamu dem kursi dem xaraf xaraf am na juróom ñaar téeméer juróom dem téeméeri junne ci tool bu ci nekk ci loolu bu ci nekk la fa nekk ci mbindeef mboolem yi ci doon affaire loolu la te bii ci yow rek dañuy war nga leen jëkkoon la xam ne doomu aadama yi ñu doon dëgërëna ak junne yi ñu ngi ne ci ndum ci biit mbindeef yàlla yu bëri yooyu yàlla ne indi leen ma jaanama ñu maa leen bindoon wax dëggal leen li ma leen digaloon ñoom ñëpp xëpp nañ sama ndigal gis naa seen téere jëf dara baaxut waaye mu indi leen ma jaanama mu lakk ñëpp tamit ñor dañu mu rahim mu rahmaan mun kàttum laa malaaka yëpp ci ndax bu jaarab naa laa ma salim salim yonent ba gis ma nga naa nafsi nafsi ñu dawali Adama dawali Nuum dawali Ibrahim dawali Muusa dawali Iisa fañ dara jàngatoo nañ ko ñu soog a dem ci yonent ba mu ne ana laa loolu maa ko xeloo de daal di ñëw ne jaanama sañ naa ñëw kay gëm yàlla te génnewu ma sama xeet ba noppi daal di ñëw ñëwal boromam si jóot mu ne ko si jëm tey bésam jaamu yàlla laajal loo bëgg rek ma jox la rambu koo bëgg a rambu rek ba mu tënk ko loolu mooy maqaamam yonent bu ñu sant ba ca Saara yi Saara Saara ñëwaat ba Saara bu ko maqaamam am waran de garab bët yëpp ci yonent lay aju rek amut yekk um rambu garab rek doo am jàmm de ak yonent yi mooy moo leen di rambu ñu soog a mën a rambu su yonent yi rambu way sa yi rambu wala maa way rambu julli ñu daal garam woon te ñenn ci ñenn rek yéefar nañ amul kenn ku leen gërëm yàquwul gën a wax yéefar ba yàlla itamit xelante man ab dem ko ma jiital yaa ci ko dund sama def lu gënoon ma jiital gëm yàlla kese ma dund daa dund rek moom ne fa yow may dim defar ca laa yoon ci bu buggal ci abaaboo kam bugalam nga aarum kenn wala laa yoon ci bu buggal ci abaaboo bugalam aarum kenn garabu mbugal ma yàlla du ko wàcceel tan wala laa yor bu mbugal ci abaaboo mbugalam aarum kenn garabu mbugal ma yàlla du ko wàcceel tan nga xalaka jaar na jibi la ñëw rek xaaju mu day waaye keral na yàlla boppam mooy bugalal boppam rek wala ñëw ci ko doon ci dama saa oo ñoñam ya aarum kenn garaw yàlla du tënkal kenn yi du dugal kenn mu gën a yëfër yëf tënk leen xanaa yàlla bu ko mu leen dugal tënk leen bugalal leen boppam rek yaa ayyatuhaa nafsu yow bakkan bi al-mutma'innatu bari aji xoolu bari aji gëm yow bakkan bi nga xam ne gëmoon nga sa borom parce que loo xam ne gëm ci sa borom jiitu dee. kon loolu loolu la nga am ci borom sax loolu ci sa borom bu baaxoo la xam moom ca waxu dee loolu lañ koy wax ah yow tam mbir mi nga aji gërëm la ngay fàttali ci yow maa ngi yow tam mbir mi nga gis nga dem da nga fa fekk yow boo xam ne boppam la nga jëfandikoo. waaye yàlla yi gërëm na la ci jot a yëngu mu jaar ne parce que ñu xaaral ñu ngi baal ñu ciy jaam sama ñoom bu gëstu sama jaam la xam nga moom ñëpp waaye ñoom ñu tuddee jaamoon parce que ñu xaaral gën a jiwaat gën a sama ndemam.